képp ku am commentaire boo bëgg a def ci bépp série sénégalaise que ça soit mu nekk Mœurs Madior ak Dior Idole bépp série bu mu mën a doon wala nga gis loo xamante ni dafa am ci réew mi ñu war cee wax mën nga ko envoyé par vocal ci numéro bii di affiché numéro bi nag amul group képp ku am loo bëgg a wax da koy yónnee par vocal ñun incha allah buñ ci jotee dinañ ko jàllale parce que lu xew TV ñun ñëpp ñoo ko bokk. te bu leen fàttee abonné di partage vidéo yi ngir liggéey bi gën a mën a yaatu lu xew TV seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. sama gars maa ngi ziyaare waat maa ngi biir Gade ne épisode trente-sept waaw bii nag dama bëgg a wax si ni nit naan saan zil moo dóor zaan <laughs> gëmoo ko de zaan gëmoo ko ndax ma yaakaar ne zaan dafa yebal mën na am zil bu yebal benn élément mu dóor zaan wala dara waaye gëmu ne moo dóor zaan gëmoo ko man ba pare li zil def dafa war a jeex Sénégal bëri na fi nag wax dëgg yàlla nañu waxante dëgg waaye li bëri na fi ndax dama seetaan kër baay kër baay dama ko seetaan benn museum moom lu am solo ndax benn benn kii dafa basir basir kay naan basir dañ ko dugaloon jeel mu rëcc bi bi ma see gis tamit zil dañ ko dugaloon jeel ñu rëccal ko moom it lii nag dafa bëri Sénégal dama ko dafa bëri Sénégal léegi criminel yi rëcc jeel dafa bëri ki ngeen ni nag bu defee déli ba nga tëj ko rap waroo kaa fexe ba mu rëcc waroo fexe ba mu rëcc ginnaaw ci bu rëccee dina sonal waa àdduna bi waxuma la dina sonal ay mbokkam ne waaye dina sonal waa àdduna bi ndax dina fi def loo xam ne àdduna bi ñëpp ñëpp a koy yëg te kenn du nangooti sa doom génn wala sa doom wala nangu yoo sa doom nangoo génn sa sa doom di génn yooyu dañ ko war bàyyi xel ñii ñin ñu leen di bàyyiwaale xel bu baax ñu leen di tëj foo xam ne ñu mën a rëcc ñu def dara lii nag bëri na Sénégal lool wax dëgg yàlla war nañ see jug maa ngi jégalu nag waaye war nañ see jug nguur gi war na see jug lool lool lool nguur gi nag war na jug lii lii nii na see jug waaw banditisme gi si àdduna bi war na see jug nit ñi tamit ñu xam lu baax xam bàyyi lu bon nañuy def li sacrifice yi accident yu metti yi lii yëpp ay daanaka ay sacrifice la maa ngi jégalu nag. sama gars yi maa leen ziarar bàyyi yéen ngi am jaam baax a baax yéen a ngi am jaam yi àdduna jaam yi laaxara yàlla na yàlla defal jaam site bi yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla yóbbu fu kawe fu kawe kawe yàlla na ko yàlla def ay télé ki télé yàlla na dem ba télé yi nekk si àdduna yàlla na dem ba suul leen si barke Seydina Mohamed te yàlla ka def ay rojo ki rojo te lekk tere si barke Seydina Mohamed ndax li xew TV site bu ma neexal site bu am solo la ndax bi ma ko gisee man dama gaaw abonné na ñëpp abonné ku mën a abonné ndax site bi site bi defar Sénégal la bi jëmal Sénégal si kanam la te ndaw ñi war nañ see gën a gëstuwaat xool site yu baax yi yi def lu baax si àdduna bi ñu si jéem a gëstu bu di si abonné di xam li xew si àdduna bi ak li xew si Sénégal macha allah wax dëgg yàlla tamit maa leen di ñaanal foo mënti nekk foo leen di mënti nekk si suñu borom dafa leen jàmm a xéewal. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki li xew tey ñu ngi di nuyu DNG jëm di te di leen ñaan nag di ko sàkku ci yéen baax a baax te di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy safoo seen bii di la xew tey di wax ne seen bii am na solo te macha allah di saako ci yéen ñëpp ngeen abonné ci nga xam li xam ne moom mooy li xew tey. information lu mën doon incha allah da ngeen ko jot comme ni ngeen ko bëggee waaw man nag maa ngi bëggoon a wax ci nga xam ne série bi nga xam ne moom mooy Mœurs waaw waaw day wax ne série boobu série boo xam ne ne série njariñ askanu Sénégal la ndax dañu ciy dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi jigéen lañ ciy dimbale te jigéen dimbale jigéen dafa war ci doomu aadama ndax jigéen yàlla moo ko bindee bind koo xam ne ni matul waaw dañ koo bind ci faaru doomu aadama moo tax képp koo xam ne da ngaa da ngay dimbali jigéen incha allah dinañ ànd ak yow waaw man nag dama doon rafetlu rek dama doon rafetlu li xam ne moom mooy vidéo yi nga xam ne moo fiy jàll di ko seetaan di ko bàyyi xel fi ñu mën a nekk waaw te di te di leen ñaax baax baax di leen eh, ah, waaw ah, li may wax waaw série bi ñu di yàggu mooy Mercy la Brigade waaw li mu si gën a marqué moo tax ma si wax mooy décédé Aïda bi quoi ak tamit Aïda ak rakk ji quoi doon liñ daan dundee si biir kër waaw Aïda euh, comportement comportement am euh, euh, garaaw na waaye ak dundam quoi moo yéeme ak dundam moo yéeme quoi ndax dañ na nit boo ko gisee si comportement boo ko jàpp bu ko xool bu ko ko jàpp si comportement ko sa jikko ja est-ce que Aïda li nga xam ne moom lay dawal rôle bi nga xam ne moo lay dawal ci théâtre est am na taas waaw ndax boo dee xool ah, tout le temps rak bi day ñëw dama gis lu lu daw yaram mu am ci mooy bi muy jooy di bind livre bi di jooy rak ñëw mu ne ko xoof mu ne ko mala mami mu foom rongoñ encore non dund goo xam ne Aida daal day dund dund goo xam ne quoi ah, moom kenn du xam quoi <laughs> ndax gis nga muy sangu di jooy ah ngay ko muy bind livre bi di man daal ah man daal ah, série bi daal moom ah Aida ah, daal yéex naa génn waaye tamit marqué na ma quoi Zélimusée ak tout le <laughs> ndax papa ji ñëpp gis nañu ne da kaa daan ne ko doo doo gàddaayee doo gàddaayee ma sëgg sara ak ak protégé nag ni mu ko doon protégé ay ni mu ko doon protégé waa raket yi ndax tout temps day ñëw di ko xam moom ni ay kuur yoo xam ne du ko mën a comprendre xet yi ay da tout day ñëw di ko di jàngal quoi waaw man daal série bien ah ay ah, da quoi ak raket ñoom ñoo ma si gën a marqué quoi ndax ñun li ñuy ah daa ak léegi li xew ñoom moom xarit daal li ma la waxee daal comportement waaye moom ah, jugee borom baax la yor billaay wallaay jugee borom baax quoi ah, xam naa ne maa ngi ñëwaat ci kanam allah maa xaw a jàpp ni. may ziaraat di ah, moom bi trente cinq bi. démb man moom si gën a si début affaire yi mu commencé daw ba tey quoi ndax li ay di dund dafa metti trop mooy lool moom démb ba tey dama koy seetaan di ko seetaanaat daal daf ma sogee quoi xam nga man man ma comprendre papa di tëddee doomam quoi non tey loolu am na dañ ko génne mais lu am la dafay bëri mais kenn ñi wax xam nga famille nii famille naa dañuy gis dëgg de dëgg seen tànk xam nga mooy loolu daal duñ nangoo wax dëgg gi te yooyu noonu benn saa dañ see war a waaw ndax mi ngi yàq société bi. asalaamaaleykum maa di waaw wax loolu comme li kooku wax moom sax la dëgg loolu moom échange bi dafa bëri sax loolu moom léegi dafa bëri comme ça quoi. am naa nit ñi bu ñu yeboo jóg si moom loolu moom dafa bëri Sénégal gis naa c'est man mii gis naa ko ah man mii gis ko côté Mbour waaw am na benn dëkk moo gisoon Mbour ah même kooku kooku ba kooku am am naa kii am naa euh, doom ji doom quoi même doom ji sax mi ngi foofu doom ji mi ngi foofu quoi man ci ma gis moom doomam mi ngi dund moom donc moom papa ji rëy doom bi dund dara instant bi doom bi mi ngi dund instant bi ñoom ñaar ñëpp a ngi si kër gi paa baa ngi fi euh, doomu paa beneen doom baa ngi doom ñoom ñëpp daal ñoom ñëpp ñoom ñëpp a ngi fi waaw jërëjëf di bàyyi rafet maa ngi rafetlu kii bi nag waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waa li xew TV delluwaat siyaar leen rek waaw ba tey nii rek euh, indi beneen euh, comment benn commentaire rek ci série bi di Mœurs rek parce que Mœurs doonu série boo xamante ne nii euh, li muy wane ak li muy fësal li muy xeex doon loo xamante ni dafa bëri lool lool lool lool ci dëkk bi tey jii ni bu ñëpp mënoon a wax mbaa bu ñëpp amoon mënoon a porter seen i voix ñu wax ñëpp a dégg leen di nga dinañ xam dina ñëpp dinañ xam ne lii bi euh, comment dirais-je série bi am na lool sens parce que tey jii ni da ngay gis benn jigéen dund nekk ci benn kër di dundu yenn yi dund yenn yi di stressé wu mais bu gisee loo xamante ne ni da koy dindil stress rek da siy nekk moo waral ñii di tux ñii di naan ñii di def lu bon am na ñoo xamante ne ni ñu baal si kàddu gi sax dañuy jaar foofu noonu di def yoo xamante ni lu yàlla xam doy na moo tax nag genre série yu mel ni euh, man moom franchement dama koy apprécier xam nga mais as tuut rek moo si xaw a kii quoi moo si xaw a parce que ñun itam dañoo nekk si benn dëkk boo xamante ni ci réewum jullit lañ nekk donc lépp dafa war a civilisé rek lépp dafa war a jaar yoon xam nga moo tax ci wàllu colin bi rek dañ kaa war a change changer un peu pour que mu gën a yiw xam nga parce que neexul neexul benn côté nga toog ak say waajur sa yaay ak sa baay ak sa famille sa njaboot nga gis yenn colin yu sexy yooyu noonu xam nga loolu itam mooy loolu day xaw a perturber un peu loolu moom buñ ko mënoon a changer xëy na dina tane lool concernant kaw ay ayda bi ayda man personnellement bi muy doog génn dama kaa mere woon man trop dama kaa mere woon dama kaa jéppoon parce que comportement bi bi mu yoroon au début boobu fekkee man xamaguma euh, lan moo nekk si biir mais bi ma demee ba xam li nekk si biir rek boobu laa xam ne effectivement kii elle a raison elle a raison parce qu'elle souffre beaucoup qu'elle souffre beaucoup donc loolu moo ko permettre loolu moo ko poussé woon mu nekk si yooyu noonu mu ko parce que yooyu noonu moo ko doon soulager moo ko doon soulager donc daal série bi moom vraiment macha allah mention spéciale à ñëpp waa waa Salam TV waa waaw mais grand boobu lu mu wax maa ngi koy maa ngi koy rafetlu quoi ndax grand loolu mënu ko àggale ndax moom avant muy dem moom dafa dafa xam ne ne day dee moom dafa xam na ne day dee moo tax mu bind livre bi teg si yaa ngi comprendre taxaw na xaritam boobu naka naka xoolal rakam bi mami si yaa ngi comprendre affaire bi noonu la fay demee bàyyi foofu mu ko daggee baax na mais beneen beneen beneen lettre bi da koo bind teg ko livre bi da koo taxaw ndax dafa métti torop affaire bi moom yaa ma gën a xam film bi moom yàlla na yàlla def jàmm rek waaw cat ban cee dugg ñuy continuer rek waaw ca kaw ca kanam kontaan naa ci torop wax dëgg yàlla li ma gën a marqué ci film bi li ma ci gën a neex mooy Aïda César jaana ñaar ñu ñu ba bàyyi seen rôle normal billaahi wallaahi caw ci kaw sa rek bàyyi ok waa salaam salaam salaam brigade des femmes ziare naa leen si loo leen nekk yéen nga am jàmm ah bo wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla rafetlu naa torop torop torop torop film bi film bi dama koy marqué lu bëri bëri bëri bëri dama koy suivre lu bari waaw wax dëgg yàlla kontaan naa si torop waa Aïda Aïda moom lii muy def pour pour rek ndax lépp looy gis àddina lépp loo gis nga yaakaar ne amul ci Sénégal am na lépp loo yaakaar ne amul am na waaw dafa am dafa leer nañu waaw mais Aida lii muy dund métti na trop waaw métti na mais il faut que nga mën a muñ nga mën koo dund boo mënta muñ doo ko dund de lu leer laa lay wax waaw merci beaucoup. salaamaaleykum waaw di suivre rek euh, kii bi euh, mooy prison de la femme vraiment li ma doxee neex trop kontaan nañ si kontaan nañ tamit si euh, ñëpp si ànd bi vraiment kontaan nañ si baax a baax a baax a baax di wax rek sugesa moom nan lañ def ba waa brigade moom ñu koy bàyyi mu rëcc vraiment loolu moo xaw la ñuy planifié trop waaw ndax ñoom vraiment seen nit yaa xaw naa des foofu noonu yeewee bu baax a baax képp nga xam ne yor na tamit mooy ñi xam ne si biir daal si ñu jéem a moytu loolu baax a baax a baax parce que des fois xam nga dëggaay day am ay mafu affaire yooyu noonu kon ay dama vraiment ñu bu baax a baax Thérèse monsieur copine mu mu àndatoon vraiment Iman moom tamit liggéeyam naa si trop trop trop sax waaw vraiment kontaan si moom. ah jawriñ si am jàmm siyaar naa lu bare bare. naka xet may nag defal ah. la lu xew TV ah waaw ziare naa la bare bare man de benn action moom moo ma neexut si Meuze quoi ma théâtre jigéen ñooñu daaw TFM muy te Meuze ñu koy wax boobu xaw maa yéem loolu wër na Sëñ Fallu waay waa ji ni muy rayee ñaaw na lool ndaw si ni ñu ko rayee métti ne ma quoi jeeg si rek salaamaaleykum rek dóor jàmm mu faatu nii. métti ne ma loolu waaye waa yooyu war na wax ak moom de xam ma zilzala raxama mais mais rey ñaaw na loolu waaye waaye ah, kooku ma loolu de mais ziare naa lu bare bare di ñaanal affaire bi nag jëm sa kaw sa kanam.